DN TV, vos besoins sont nos priorités. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. prédécesseurs yi defee le jëm ci lion nous dañu leen di encourager parce que dans démb amuñu ndam ci match bi ñu def waaye li ñu mën def nañu ko ah, dañu di taxaw ci sen gannaaw ba match yi nga xamné ni moy ñew ñu mën ci am ndam té it comme niñ ko waxé défaite ci première match euh, bari na réew yu ko yu mu dal té téwut sori nañ ci championnat donc moo tax euh, ñu ngi leen di encourager di wax sénégalais yépp ñu nekk ci sen gannaaw jappalé leen ba nga xamanté ni dinañu mën a ci match yi di ñew ñu mëna am ndam

Nous voulons encourager suñu de député Nous di féliciter les féliciter qui nga xam ne ni am nañu nationale parce que depuis plusieurs décennies nous avons, gis assemblée nationale est une majorité mécanique Nous avons maintenir ni bu budget yi lépp dañ koy voter comme lettre à la poste du ñu am l'opposition bi du am euh, bu bari bu meuna a opposé ba nga xamante ni ñom dinañ comprendre ne li ñuy def jaadul wayé député yi nga xamné ne nii ñoo fa nekk ren donté taxaway bi war nañ ko gëna yok wayé waaye it ñu ngi def li ñu mën ministre yi jaaxle nañ député Benno Bokk Yaakaar yi jaaxle nañ fi mu tollu ñu ngi saga ñu ngi xaste ñu ngi def lu né parce que dañoo jaaxle motax ñuy wax suñu mbokk député yoy ne leen buñu faté mukk muk ne len askan bi lañ fa togal buñu faté muk né ne askan bi ñom lepp li ñuy def ci assemblée nationale lañ ci jiital intérêt askan bi ba nga xamante ni budget bi Macky Sall wax leen ñu voter ko budget le bo xam ni amul c'est pas un budget d'investissement budget le bo xamante ni nii mën nañ né sax budget pré-campagne le pour 2024 donc lu mel nonu nak ñom ku ci nek na ci jël responsabilité taxawal askan wi ba nga xamanteni ni li intérêt askan ni ñom danañ ko défendre ah bu loolu weesoo nak dañu tam suñu tollo ci yenn événement yi euh, dëkk bi nan selew kenn dotul xalaat ludul ci événement boobu mais loolu piège la gis nga ñu ngi tollu ci coupe du monde coupe du monde bob bu mu tax ba askan bi fàtte ay difficulté coupe du monde bi bu mu tax ba

donc xeex la boo xamante ni bés bu yalla sak ñu ngi ci te duñu ci jogit tant que ñu ba am li ñu bëgg duñu ci jog donc mom bu yaakaaree né coupe du monde bi fay ñëw ñun ñu tok croiser suñuy loxo bu coupe du monde bi ñëw ñu ñu ñu ñëwaat né dañuy am li ñuy wax nax na boppam askan wi dañ ko xexal difficulté yi nga xam ni mom la askan bi di dundu jamono bi xeyna euh, président Ousmane Sonko dina ci ñëw mais sénégalais yi dundatuñu sénégalais yi ben repas la ñuy am ci

benen bi euh, soxna Aïda Mbodj mi ngi koy wax lu jëm ci walu journaliste mais moom li mu xamul mo di japp bi mu japp Pape alignan Niang ko da fay ne Pape alignan il fait très bien son travail c'est parce qu'il fait très bien son travail motax mu ko parce qu'un journaliste d'investigation liñ koy fiñ koy xaare moy fan li nga ah, euh euh euh muy muy régime bi muy muy muy ministre muy président lepp lo xamné ni ñu koy def te méngoowul ak intérêt askan wi ñom ñu tok xalaat ci enquête ci vérifier ko ba paré diffuser ko booli ci sax mom ñu koy takal lo xamné ni defuko mais lolu mais da fay wone né ci mu nek ni président bi ñu am moy président bi gëna impopulaire ci histoire au Sénégal moy président bi nga xamné ni lu jëm mom c'est le président des premiers moy président bi juddou avant indépendance après indépendance plutôt président bi nga lui dit ni lu jëm violer constitution Sénégal li mu fait ci defee amul benn président bu ko président bi nga qui manipule justice moi, président bi nga xam ni fi mu ci yegg amul benn président bu Moi le président bi nga qui ni lu séparation des pouvoirs le les murs de la séparation des pouvoirs le président bi nga qui ne ni ci le mur yooyu le moi président bi nga moi on a par la petite porte Abdou Diouf amna nu mu président Senghor amna nu mu Abdoulaye Wade amna na nu mu génnee waaye kii fi nekk bëgguma sax tudd tur ni mu nar a du nek nekk day loo ne nii dina gën ci moom moo ñu koy qu'il revienne à la raison qu'il sache qu'aujourd'hui amna lo loo xamante da nii ko def muy jàll mais d'autres jàll su ñu ñëwee ci le euh, la président Déthié Fall wax sécurité Ousmane président Ousmane Sonko bi arrêté C'est du sécurité président Ousmane Sonko yëpp président Yewwi Askan Wi puisque gis nañu comme ni président de Fall waxee taxawaay bi nga xam ne am nañ ko bi nga xam ne nii ñu ngi ci campagne législative Protéger président Ousmane Sonko ñëpp la ñu taxawu bépp président bépp leader bu nek ci Yewwi Askan Wi taxawu nañ la ak comme nico, Yenen, sécurité aussi défait. mais ñooñu c'est parce que li ñu doon bëggoon def bi convoqué le président Ousmane Sonko té ñu koy fatali moom président Ousmane Sonko mo insisté à ce qu'il soit convoqué devant le juge parce que épée de Damoclès bi ñu bëgg a ci bopam loolu la comprendre té loolu jaadul kenn du ko nangu ñu convoqué pourtant ñom dañu né ñoñu dafa am lu ñu def bu ñu jàppee ne ñooñu dafa am lu ñu def lo mengo ou mengawul ak li loi wax nañu leen convoqué et pourquoi convoquer wuñu leen nous bàyyi ben nous dem palais de justice en ak le président Ousmane Sonko nous téye leen jël leen bàyyi te bu ñu bu ñu newoon sax dañu président Ousmane Sonko bala muy wàcc ci oto wala bu ñu nekk ak mom. ñu arrêté leen mën nañu wax mais dañu bàyyi ba président Ousmane Sonko dugg ci bureau juge bi ñu yel ku ñëw kidnappé leen waaw ñun ci ban dëkk la sommes-nous dans un état de droit Amne na loo xamante ni nag dañuy wax ne mak lu mu nangu ñu dagan waye ñun askan bu ñu nangu Macky Sall contre di teg li ci ci suñu ndodd amna lo xamanteni ni ci askan bëggatu la wan nañ la ko ci élection locale yi weesu wanat la ko ci élection législative nga continuer agrippé wu ci nguur gi nga wara xamné bo def la attention ni nga nguur gi du neex ci yow motax ak ñi mu revenez à la raison

Du coup, que article 27 de la constitution donc nit le ko xamanteni ni bu fekkee ne na xel bu astout xel li ñuy wax euh, euh, discernement su ko Amé astout war na rien n'est plus avec lui jaww jeeg asamaan askanui suuf seeg askan wi dara àndatul ak moom waaw boo ba tollu ci situation bob même bo gëmul yalla même bu ñu xamé né c'est lepp ci xërem la mais nga wara xamné nak ñi bëggatuñ la nga bayyi joxe lenge yi nak motax ñu def point de presse bi parce que coupe du monde événement le ñun ñëpp dañ ci participer seetaan football bi waaye du tey xex bi ñuy xeexal askan wi mu dak amul mi-temps de xex bi ñuy xeexal askan wi amul mi-temps amul temps mort day jeex tant que demuñu ñu bam objectif ba atteindre objectif yi nga xamné ni mom lañu ñu signé ak askan wi duñu arrêter pour bañu ñu guddal le président Ousmane Sonko ci ñëwaat lolu ñu pour wax leen ko remercier ci sen téway ci sen taxaway nit li ngeen di merci nos priorités. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.